wasalaatu wasalaamu ala asrafi alambiyaai walmursalin sayidina wa maulana muhammadin alamin وعلى آله وصحبه أجمعين لقن لساني واحلل منه العقد واجعله ذاكرا وشاكرا أبد واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa ngi leen di nuyoo di leen ziyaara di leen ndokkee di leen balu àq te di leen baal di ñaan suñu borom bi subhanahu wa taala mu boole ñu jéggal ni ñu ko baaxee baaxoo ànd ak yéen ci ay bés bu jot ci sunu jotaay xam-xam yi ñuy fàtt leen teendoo ak yéen ci lenn ci mbindum sëriñ bi radiallahu anhu ci suñu jataay yooyu lañuy dellusi ak yéen rek tey nag ñuy dugg ci bunt bi nga xam ne moom la sëriñ bi radiallahu anhu def dañu xamal naka lañu war a gëme li nga xam ne moo di ab dogal ak bu ñu waxee ab dogal moom mooy lan ab dogal mooy lan ak naka la ko jullit bi war a gëme moom la tuddee bunt boobu attaarifu bi kayfiyati al bi bil qadari allamana allahu daqaiqahu wa sabarana alayhi sëriñ bi radiallahu anhu ne bunt bii moo ñuy jàngal naka lañu war a gëmee ab dogal yal nañu yàlla xamal maanaam sew-sew yi nga xam ne moo nekk ci ab dogal waaye itam yal nañu yàlla def ñuy way muñ dogal yi nga xam ne day tàbbi saa bu xewee doon boo xam ne dogal bu tiis lay doon mu ne imaanukum seenu ngëm yaa ayyuha sibiyaanu yéen ndaw ñi bil xadari ca dogal ba atasdiqu mooy dëggal wal ixaanu ak wóoral bi anna kulla waaqeen ndaka lépp lu tàbbi ndaka lépp lu xew fi zamanin ci jamono min azmunin ci jenn jamono fii sirrin moo xam ci eh, ak yalu am aw fii wala ci ak biral la am bi ilmi rabbikum mi ngi tukkee ci xamuk seen boroom wa bil ci ak ak ci ak nammilam wa xudratin ak kàttanam lahu wa xudratin ak kàttan lahu ñeel ko faawu na ngeen wattu al njariñ la sëriñ bi radiyallahu anhu nee na ndaw ñi de maa ngi leen di xamal ne seenu ngëm ci ab dogal de mooy ngeen dëggal te wóoral maanaam lépp loo xam ne xew na bépp xew-xew boo xam ne am na wala mu xew na ngeen dëggal te wóoral xam ne xew-xew boobu day la njëkk muy xew seen borom bi subhaanahu wa xam na ko waaye itam xew-xew boobu mi ngi ame mi ngi amee ci nàmmeelu suñu borom bi subhaanahu wa taala waaye tamit mi ngi ame ci kàttanam kon lépp loo xam ne xew na moo xam xew-xew bu neex la moo xam xew-xew bu naqari la bépp dogal boo xam ne tàbbi na rek nañu jàpp ne ñett yi euh, moo mooy li nga xam ne moo euh, xewal dogal bi mooy xam-xamub suñu boroom ak nammeelam ak kàttanam kon dara mënta am euh, te suñu boroom bi subhanahu wa taala xamu ko waaye dara mënta am ci lu dul lu suñu borom bi subhaanahu wa taala namm waaye dara mënta am lu dul ci kàttanuk suñu borom bi subhaanahu wa taala amee moo tax mu ne innama amruhu iza arada shay'an an yaqula lahu kun fa yakun moom bu fekkee ne dafa namm dara rek daf koy wax nekkal mu nekk kon nammeel ga def cee am muy iraada gi waaye nekkal gi mu nekk loolu tamit kàttanam def ci feeñ bu baax a baax a baax kon lépp loo xam ne xew na rek dañu jàpp ne ci xam-xamab suñu borom bi subhanahu ak ci am nammeelam waaye ak ci kàttanam ci ñett yooyu mooy yi nga xam ne moo daje ba ab xew-xew tàbbi moo xam xew-xew ba mu man di doon moo tax sëriñ ne waqan moo xam xew-xew boobu tàbbi na xayran di aw yiw waxuwa te yiw woowu nag ittibaaxu mooy topp sunna aw baana wala mu bir charran di aw ay waxoote moom ibtidaaun moo di topp bidaa sëriñ bi radiyallahu anhu ne na xew-xew yooyu nga xam ne mooy am day e, ci jamono yi mën naa doon aw yiw te aw yiw nag ki topp na rek la mën a tukkee maanaam nit ki su fekkee ne day topp sun na la nga xam ne moom la ca suñu borom bi subhanahu wa taala dogal ci moom aw yiw rek lay doon waaye ki nga xam ne day topp li nga xam ne mooy bidaa bu boobaa euh, kooko itam la nga xam ne mooy tukkee ci toppam googa euh, du doon lu aw ay woo xam ne du ko jariñ dara waaye lor ko rek lay def moo tax mu ne loolu nga xam ne mooy xew day xasala moo xam am na xulwan di aji neex ka sawaabi zitti baax niki yoolub way topp ni aw jaa wala mu dikk morran aji wex ka xaabi zitti niki mbugali woy topp bi ñi nee loolu nga xam ne mooy xew day euh, bu xewee ba pare mën naa doon aw yiw yiw woowu nag mën naa doon lu mel ni euh, yool bi nga xam ne moom la ñuy fay woy topp ñi sunna nga xam ne nit ki bu fekkee ne jëf na lu dëppoo ak sunna suñu borom bi subhanahu wa taala daf ko ci defal tuyaaba waaye daf ko ci defal ak yool waaye ki nga xam ne mooy topp daa nag moom la nga xam ne moom la ciy jële moo di aw ay te awee wam ciy jële la mu koy jural rek mooy mbugalam suñu borom bi subhanahu wa la kon te loolu lépp ci taw dogalub suñu borom bi subhanahu wa la lay tukkee waaye nag du tee ki nga xam ne mooy topp daa ñu koy e, xamal waaye di ko nàmm di ko xamal ne yoon yu mu jël baaxul di ko ca yedd doonte ne ci dogaloog suñu borom la ca sooboo sax nekk ca ndax lu xew lu ne suñu borom subhanahu wa taala mooy ki nga xam ne moo ko dogal waaye itam du tee ku mel noonu ñu koy euh, xëccaat ngir gën koo indi ci euh, yoonu siraatal mustaqim waaye gën koo teg ci li nga xam ne mooy yoonu baax wi nga xam ne bu ci jaaree dana topp sunna te bu toppee sunna ca lay mën a amee tuyaaba waaye ci lay mën a amee li nga xam ne moo di aw yiw woo xam ne moo koy jariñ moo tax mu ne wa na annahu ak naka moom lay sa yu assiru layaat déet dara di aj di jeexintal fi asarin ci jenn jeexintal fi asarin ma ci jeexintal ju mu mën a doon xayru xaaliqil lu dul yàlla mi nga xam ne mooy aji bind mbindeef sëriñ bi radiyallahu anhu ne na na nga xam ne lépp loo xam ne dafa xew rek Euh, la nga xam ne moo ca jeexintal ba mu xew nañu xam ne tukkewul fenn lu dul ci suñu borom bi subhaanahu wa taala maanaam dara du xew euh, te loola tukkeewul ci euh, suñu borom bi subhaanahu wa taala mi nga xam ne mooy bind bindeef kon loolu daf ñu yóbbu ci nit ki war naa am gëm-gëm bu toll ni lépp loo xam ne dal na ci kawam rek mu xam ne lii ci dogalub suñu borom bi subhanahu wa taala tukkee waaye bu mu ko jël di ko jiiñ menn mbindeef lu mel ni tey jii bu suñu borom subhanahu wa taala dogalan wàcc ci yow tawat bul ko jiiñ kenn bu suñu borom subhanahu wa taala dogalan wàcce ci yow li nga xam ne mooy euh, faat sa mbokk mu jege wala dara wala yow sa jëmmi bopp bul ko jiiñ kenn waaye fexeyal ba lépp loo xam ne moo dal ci sa kaw rek comme ab dogal nga jël lépp delloo ko ci borom subhanahu wa taala xam ne dara mënta am jeexintal ci li nga xam ne mooy xew lu du dogalab suñu borom bi subhanahu wa taala mi nga xam ne moom mooy bind bindee mu ne wa lafzu laa ilaha illa allaahu baatub laa ilaha muhammad al mursalu kadikan yónni min mawlaahu mu tukkee ca borooma bi subhanahu wa taala yajmaaw dana boole jumlata zil zihil maani mboolem maanaa yi nga xam ne moom nga romb lisa ngir loolu badaa feeñ na alaamatal imaani mooy màndargaam ngëm yàlla nee na baatub laa ilaha illallah muhammadun rasulullah nee baat la boo xam ne moo boole mbooleem yi nga xam ne moom lañ war a gëm nga romb ko baat boobu tënk na ko te boole ko képp koo xam ne baat boobu gëm nga ko te di ko bàyyi xel nee na na nga xam ne lépp luy màndargaam gëm dajale nga ko waaye lépp luy màndargaam ngëm euh, boole nga ko kon euh, lafzu baatub laa ilaha mooy baat bi nga xam ne moo boole lépp loo xam ne nit ki war na koo gëm mooy màndargaam gëm yàlla mi nga xam ne lépp lu nit ki war a gëm rek ci biir baat boobu la ko la la la la waaye ci biir baat boobu la la la la nekk kon li nga xam ne moom nga war a gëm ci malaaka yi li nga war a gëm ci téere yi li nga war a gëm ci bis li nga war a gëm ci euh, yeneen ponki gëm yàlla yëpp baat boobu daf ko dajale moo tax sëriñ bi ne euh, isil uluhiyatu ndaxte nguur nguur mooy lañ bu ñu ko waxee mooy lan an yastaghniya mooy nga doylu an kulli ma wolif lépp la nga xam ne siwaahu wolif moom la euh, moxnil aghniya nga xam ne mooy oomal mooy omluloo way woomal ñi maafti xaari kulli ma siwaahu ànd ak aajawoog lépp lu dul moom ilayhi jëm ca moom jàlla màgg na malikan di buur moom suñu borom bi subhanahu wa taala xif ragal nañu ko ne na uluhiya day nguur bu ko waxee mooy fépp ak lépp ak ñëpp aajowoo jëm ci kenn rek te kooku ñu aajowoo mooy kan mooy suñu borom bi subhanahu wa la moom mooy ki nga xam ne fépp ak lépp ak ñëpp dañoo aajowoo jëm ci moom te moom aajowoowul jëm ci kenn aajowowul jëm ci lenn aajowowul jëm ci fenn kon loolu bu ñu ko waxee moom mooy nguur mooy ki nga xam ne doylu la ci boppam maanaam boppam doy na ko wolif ñëpp waaye ñëpp itam soxla woon jëm ci moom fépp soxla woon a jëm ci ñoom waaye lépp soxla woon a jëm ci moom bi suñu borom bi subhanahu wa la kon loolu bu ñu waxee nguur dëgg-dëgg loolu rek moo di li nga ngu li nga xam ne mooy nguur te loolu suñu borom bi subhanahu wa taala rek moom mooy ki nga xam ne moo ko am mu ne tafsiru laa ilaha illallaahu bu ñu bëggee firi laa ilaha illallaahu mooy laa zaaxinan an kulli ma siwaahu mooy ki nga xam ne moo doylu wolif lépp illa lépp doylu na wolif lépp waaye lépp soxla woona aajo woona itam jëm ci moom mooy la zaxinan an kulli ma siwaahu illa allah mooy suñu borom bi subhanahu wa taala mi nga xam ne maanaam doylu na wolif lépp te dara doyluwul wolif ko maanam lépp ko soxlawoo te moom soxlawoowul dara alwaxidu mooy kenn alqahaar mooy ki nga xam ne moo not lépp alxaadiru mooy aji am kattan alfaalu mooy aji def li nga xam ne moo ko soob maa yaxtaaru la nga xam ne itam moo ko tànn walam yàkkunte nekkut man kenn man kullu ma man man kullu xayrihi walam yakun man kulli man xayrihi iftaxar ilayhi maanaam te kenn nekkul di ñàkk aajo woo jëm ci moom maanaam ñëpp dañoo aajowoo jëm ci moom illal ilahu te moom mi nga xam ne mooy buur bi woowu jëm ci kenn xaalixul bachari moom mi nga xam ne moo bind mi def kon baatub laa ilaha illallah buñ ko waxee li muy wundu te di ko firi mooy lépp ak fépp ak ñëpp aajo woon jëm ci suñu borom bi subhaanahu wa la te moom suñu borom bi subhaanahu wa taala moom soxlawul ajowul jëm ci euh, kenn waaye soxlawul euh, lenn li nga xam ne mooy li nga xam ne moom la sàkk te bind ko ñoom ñoo am aajo ci moom waaye moom aajowul jëm ci kenn kon loolu bokk ci li nga xam ne war nañ koo gëm ci ab dogal kon jullit bi li war ci diggante moom ak boromam mooy lépp loo xam ne xew na mu xam ne lii ci dogalab suñu borom bi subhanahu laa la amee waaye ci ak nammeelam la amee waaye ci ab xam-xamam la amee waaye mu bañ koo jël di ko jiiñ kenn waaye nag loolu du tax jullit bi yaafuus ba bañ a def dara euh, toog ne suñu borom bi subhanahu wa noppi na ci lépp déedéet jullit bi dafa war a sabablu su ko defee la xam ne moom lay sabablu suñu borom bi subhanahu wa taala fekk ko ca Euh, mu mën caa am euh, tawféex bu baax a baax a baax kon ñoo ngi tuub bu baax te jégglu di wax ne in uridu illa al islah mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh